asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ci ndigalul sëriñ abo mohamed mbàkke xalifa sëriñ moodu maamun mbàkke commission culturelle a communication bu daaru salaam ñooy am mbégte di leen yëgal ak woo ci conférence yi ñu fas yéene amal ci biir weer koor gi di kooruk 1443 ginnaaw gàddaay gi dëppook atum 2022 conférence yooyu lee daañu ko amal ci ñeenti ajjuma yu weer koor gi ginnaaw buñ julee tàkkusaan lañ koy door ba keroog ñuy ndogu conférence bu njëkk bi ñu ngi ko fas yéene amal le 8 avril 2022 ubbeekoo jotaay yi sëriñ moodu maamun mbàkke seexu moom mooy amal conférence bi ñu dara jaale ko sëriñ moodu roqaya taaw sëriñ moodu maamun ñaareelu conférence bi war a doon aljuma dëppoo le 15 avril 2022 sëriñ mbàkke abdourahman mooy amal conférence bi ñu dara jaale ko sëriñ amidun mbàkke nekkoon ñaareelu xalifab sëriñ moodu maamun ñetteelu conférence bi mi ngi doon ñetteelu aljuma ci koor gi wala dëppoo le 22 avril 2022 sëriñ fàllu buso asan mooy amal waxtaan wi ñu dara ko sëriñ ibrahima dia nekkoon taalibe bu mag bu maam Cheikh Anta Mbacke ñeenteelu conférence bi di tëj conférence ci koor gi ñoo ngi koy amal le 29 avril 2022 Serigne Souleymane Badiane mooy amal waxtaan wi ñu dara jaalee ko El ma Mayoro Fall mbokk yi conférence yaa ngook muy conférence yi nga xam ne commission culture ak communication bu Daaru Salaam moom lañ fas yéene amal ci biir weeru koor gi di atum 1443 ginnaaw gàddaay gi dëppook atum 2022 ci ñeenti aljuma yi nekk ci biir weeru koor gi ginnaaw tàkkusaan ba keroog ñuy ay thèmes yu am solo di ko waxtaanee ànd jeeg boromi xam-xam yu kawe lool ñu ci woo ñëpp bàyyiwuñ kenn wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.